tër yee ko waraloon dañ koy soppi suñ xutba gi passé na maa ngi ci doon wax ne manifestation bi rek doyut mais na esprit bi jéem a judduwaat bu ñu manifesté woo ba ne jëlaat nañ suñu alal loxo yañ koy tegaat danañ ñu defaat lu mel nii ndax système bi mu baax masagumaa gis na ki suñu leader yi benn leader politique bu jóg ne système bi baaxul Sonko da laa ci dégg bu mu di ko wax moom de nee na système bi baaxul moo tax ba nga ko waxee laa ne ah dund nañu période Macky Sall dund nañu période Wade dund nañu période Diouf ak Senghor waaye mosuma dégg kenn ki ñoom ne système bi baaxul opposition bii it mosuma dégg kenn ne système bi baaxul te système bi baaxul lu ñu daal système bee ñu ko teg tër yi ñoo ñu ko teg tër yooyu lañu war a combattre mu jóg fii damay faral di wax ne tër yii ñi ko tëral ay étranger la ñu bàyyi koon ca France yor seen i kano